mbooloo mu takk lool bàyyeekoo fu ne ci biir Kaolack ak mbooleem gox yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñu dajaloo fii ci rond point Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou bi nga xam ne moo nekkee ci quartier Passoire bu Kaolack ñu fas yéene ànd ak Serigne Moustapha Mbacké Abbas dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Poroxaan ngir fas yéene koo setal ngir waajal màggal gi nga xam ne moom lañ jagleel soxna jaara ay camion bus car ay véhicules particuliers ba ci ñi nga xam ni seeni moto Jakarta la ñu yóbbu ca Poroxaan ngir bokk ci ñi nga xam ne ñooy bale dëkk ba bi 8 tegalee ay simili rek lañ fi bàyyeekoo fii ci Kaolack dem jubali ca Poroxaan bi ñu agsee Poroxaan ci buntu dëkk bi lañ tàmbalee bale jëm ci biir dëkk bi mu nekk liggéey boo xam ne nose nañ ko noo xam ni mboole mbedd yi bàyyiwuñ fenn ak bërëb yi nga xamante ni waroon nañ ko setal lile nag di liggéey boo xam ni commité d'organisation bi liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib. bu ñu jàppee màggal gi ba mu des ay fan yu néew rek ñu ñëw setal dëkk bi ba mu set ba jullit ñi mën koo jëfandikoo dëkk bi nag daa doon dëkk boo xamante ne ni yàlla dafa dogal xëy na dëkkiin wi euh, peuplé noonu. ba tax na bu nawet bi jàllee day faral di bëri am ñax waaye itam am ay taq-taq yoo xam ne daanaka bu ñu ko yeesalut jëfandikoo ko du mën a nekk. Euh, euh, comité d'organisation bi ànd kook bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañu àndal muy benn comité bu nosu ñii ñu féetale leen ci bis yi nga xam ne. ñoom ñooy dajale bokk ñoom ñooy transporter bokki taalibe yi indi leen delloo leen ci jàmm ñii nekk ci camion yi nga xam ne ñooy transporter bagages yi ñi ci des nekk ci collecte de bagages yi nga xamante ne moom ndax xam nañ ne mbale mi mbooloo mi fi nekk yëpp tey mel na ni kenn ku ne am na jumtuwaay bu mu yor ñii ñu ngi yor ay parla ñii ñu yor ay râteau ñii yor ay brouette ñii yor ay pelle ñii yor ay bale te loolu lépp comité bi ñoo ko collecteel seen bopp euh, ci njiital sëñ Moustapha ak nun ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité d'organisation bi mu doon nag diggante boo xam ne presque weer lay doon woo xam ne daanaka gars yi duñ noppalu guddi bëccëg suba ak ngoon ñu ngi def ay réunion sëriñ bi da ko jullit ñëpp la ko sant kon il faut ñu yaatal ko ba ñëpp yëg ko ren bi Serigne Moustapha demee ci moom Serigne bi yëgluwaat ndigal li mu yeesalaat ndigal li daf ko cee bokk ne ko doo ko cee booleel ne ko xéewal yi dana bëri lool waaye nag nangeen ko yaatal ba ñëpp jot ci te xéewal yi nag mooy liggéey bii ngeen di def liggéey la boo xam ne ku ko def jariñu kon na ngeen ko yaatal ba àdduna bépp bokk ci jariñu mbalem poroxaan ndigal la loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu jox ko Serigne Moustapha Mbacké Abbas ci atum 2008 ba léegi liggéey baa ngi wéy at mu jot muy gën a jëm kanam ci genn waajtaayu màggalu poroxaan mu ne ko dama amoon yéene di def waxtu woo xamante ne ni màggal gi mu ngi waaj ma ànd ak bokki taalibe yi ñëw setal li wër barab bi ngir jullit ñi fiy daje man ko man koo man koo jëriñoo bi mu waxee loolu Cheikh Mamadou Mountakha sëriñ bi daf ko wax ne ko bi ma fi nekkee Cheikh Mamadou Bachir ba tey maa ngi doog di am ku ma laaj ndigal lu ma neexee ni ndigal li nga ma laaj ne daal di ko ci jox ndigal euh, mbale ma ca jëkk di 2008 2008 boobee ba muy bale sëriñ bi lam njëkk a def mooy woo Cheikh Abdou Latif daal di ne ko na na na na ko jox ab gàtt ngir ñu toggal ci njaboot gi ab añ waaye ba mu defee loolu sëriñ bi da ko gàntu ne ko incha allahu taala fas na ñaanal ñu rek ñu dem bu ñu demee incha allah ñun liggéey bi rek mooy ñor danañu ànd ak bokki taalibe yi ñëw bale Poroxaan léegi nag 2008 ba 2023 di mooy baleem tey mi mësul dagg at yëpp sëriñ bi dana ànd ak mbooleem bokki taalibe yi ak jullit ñi ak njabootu kawlax ak li wër Poroxaan ñëpp ñu ñëw. taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci Kaolack ak mbooleem dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñëw ci liggéeyub mbaleem Poroxaan mi mbégte gu mag a mag lañu ci àndal. xandeer bu dammee ci ci tool rek wàcc na ndax ñun dañu jàpp ne ay ay ay ay liggéeykatu sëriñ bi lañ sëriñ beeñu moom waaw sëriñ beeñu moom kon. bu wooteeb liggéey bu ñu ci teewee mbégte képp la war a doon waaw ndax pièce moom buñ ko dugalee ca machine ba mu war a doxee da caa war a sant képp. ah liggéeyal sëñ bi rek xam nga sëñ bi moom loo ko defal sa xol day sedd. Mhm. liggéey pour sëñ bi rek bëgg sëñ bi kontaan fii tamit sedd macha allah loolu rek moo ñu tax a jóg. le fait que ñu bàyyi ko dëkk par dëkk parce que ñun ay ndaw lañ daa am loo xamante ne dañ koo bëgg te suñu ëllëg ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp. loolu kese moo tax ñu ñëw fi di liggéey waaw. non non c' est pas la première fois ma fi door ñëw chaque année presque mën naa ne trois ans ngi nii maa ngi nii maa ngi tegle di ñëw. Ah, xeetu liggéey bale ak ak ak buub maanaam fexe dëkk bi set daal taxawaay loolu daal lañ taxaw waaw. ah bi moo sant nañ kay kontaan métti na waaye na ñu ngi sant na xam ne maanaam liggéeyal sëñ Tuubaa moom amul tànk na tànk na la am lu ci waaye jëf rek da nga ko gis. moo woon ñu jaayante bàyyi suñu lépp suñu yitte bàyyi suñu lépp ñëw ci dëkk bu sell bi ah, euh, ngir seetal dëkk bi balaa gan yee mun a ñëw ndax kat dañ naan ku am gan da nga ñeete mbaa ñu ñee la kon nag comme màggal gi moom gan yi dañuy bàyyeekoo fu ne ñëw ci dëkk bu sell bi kon nag yàlla na ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ ah, ñu ñëw seetal dëkk bi ba mu méngoog li nga xam ne noonu la ko euh, soxna si bëgg woon. ren mooy six ans ñëw di si macha allah comme ni nga ko gisee rek suba ba léegi soxna yi góor yàlla ñëpp ci liggéey bi waaw ndigal la moom buñ ne ndigal moom kon bu ñu ootee rek liñ mën ak luñ mën yëpp dañ koy def ndax yoonu murit moom amul ne mënuma da ngay jéem rek. mbale mi maam mbale mi mu ngi kii rek daal koy génne si biti gars yi mën ko yóbbu bañ koo taal di yàq suuf si loolu daal lañ bëgg daal bëgguñu taal fii daal di yàq suuf si mbale mi ngi kii dañ koy génne bu ko defee camion yi génne ko daal koy mën a tuuri mission boobu daal a dox ñoo ko moom ñoo ko moom ñoo ko indaale indaale ay nit tafañ benn dërëm te buy ñibbi tamit dañuy yóbbaale ay nit te duñ laaj kenn benn dërëm lu si di war a dem yëpp ñoo ko si def incha allah bu soobee yàlla. dafa am mag ñi li ñuy faral di nettali ne Serigne Touba daana wax ne yàlla sama boroom dafa ma woote loo ku wuy si wàcce nga man maa ci des waaye jëmmi liggéey bi it ñoom taali bi yii nga xam ne tey jii gis naa leen ci bi jàpp nañ ne wàccoo nañ seen diggante ak Serigne Touba ndax naaju tàng na poussière bi bari na taal yi bari na Euh, xewal yeeg jot jot jamono yëpp waaye lépp terewut it bëgg nañ ci liggéeyu Serigne Touba ngir fas yéene caa am ndam. ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan rek Serigne Moustapha Mbacke Abbas ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom la àndaloon seetal nañ wecc dëkk bi nga xam ne moom moo di Poroxaan ñu daal di xéewlu dem ziyaare ji waaye dem sàkkuwaale ci ndox mu sell mi nga xam ne moo bàyyeekoo ci teenub maam jaara bi dem yóbbul ko nañ bàyyi ci kër ya